biir Sénégal lu bari. oh loolu nag du leen loolu moom su ngeen ne ba bàyyi loo rek. Mhm. dafay indi ay détails ay pro ay problème fii mhm. man lu may réeroo waa Tiwaan amul. Mhm. amul li may liggéey maa ngi liggéey. li may nekk maa koy nekk. jeex na amul lu may réeroo waa Tiwaawoon xëy na su ma doxalee neexu leen nañ téye li ñu teew seen bopp nañ téye seen bopp bàyyi maag sama bopp jeex na. duma tooñ man duma tooñ kenn réew mii duma fi tooñ te réew mi def naa fi loo xam ne génnewuñ ko xanaa lii lañ mën a génne mënoon nañoo génne yeneen am na yu ma def mu jëm ci moom te mënoon nañ ko génne mais génnewuñ ko awma kenn problème awma kenn kenn kenn kenn problème man ne naa la wax ji déggwu ma ko fenn ci buggaan laa ko dégg kon kay man du ma déglu man duma làmb man duma ma euh, laaj du ma def dara man bañu ma kumpa ku boo bëggee sa dund neex da ngay fexee bañ kumpa man bañuma ma kumpa awma lu may ragal lenn rek rek rek laa ragal tooñ tooñ rek laa ragal waaye bu ma tooñul ñeme naa ruux gaynde ruux gaynde ci taat yi ba ci gémmiñ ñeme naa ko ñeme na maa ruux gaynde ci gémmiñ gi ba ci taat wa gaynde laax ñeme naa ko ruux ba ca gémmiñ waxuma la ak nit eh, eh, mooy lan mooy lan man tooñu ma la eh, du ma dellu ginnaaw ndax li ngay li ngay li ngay propos yi nga xamante bi yaa ngi ko jël nii ndax da nga koo da nga koo teg ci xadis bi yonent bi wax ne man mun minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi est-ce que yow exactement ci loolu nga ko teg wala dangay ngay dénoncer loo xamante ni bii sa intérêt personnel da ngay seet ndax damay dénoncer loo xam ne sama intérêt personnel wala loo xam ne intérêt général man dénoncé wu ma dara dara laa dénoncé li yàlla wax laa wax lim tere laa tere lim digle laa digle dénoncé wu ma dara parce que du ma yàlla jàng ma seen yàlla maa ñoom ñoo bokk yàlla awma lu may dénoncé awma lu may dénoncé dafa tolloog na ku taxaw sama kanam wax lu dul dëgg ma ne la du dëgg soo waxee dëgg ma ne la dëgg la su la neexul nga seet noo def ma ne la man ragaluma dara dara laa ragalul yow da nga maa xamul sax da maa xamul moo tax ngay wax waaye boo ma xamoon doo wax loolu mukk lu may ragal ak kan lay ragal kan ngay ragal ci àdduna tooñoo mais doo ragal te aw ay propos man yéene ñëw laaj ma ma wax leen jeex na aw ma leneen awma ma lenn lu may dénoncé yéene ñëw laaj ma léeg-léeg lii ma wax leen la ma ci xam mu jeex ko kay amul leneen amul leneen yow dangay ngay rek moo tax xamoo li xew waaye ñi xam li xew xam ne ni loolu moo am ci ak li ci Sénégal coow lépp ni lañ ko pelante ëpp na am ko ëppal solo sax. <laughs> waaw bu leen neexee xam nga plainte euh, bu leen neexee daal ñu def ko man daal la ma ca doon wax wax naa ko ci lañ cay def nañ ko ci def maa ngi dawuma fenn fii laay liggéey tuwaawoon laay ñibbi bu ñëwee nañ ma ma jël nañ ma jël dawuma fenn laa dawul dawuma daayuma fii laay liggéeyee woon lay ñibbi jeex na buñ ma soxlaa nañ ma woo Babacar jaañ woo na ma ba ma wooyee wax naa ko li ma ko wax wax naa ko li ma ko wax man aw ma lu may arrière awma parce que tooñu ma kenn du du yàgg yàgg yàgg ba ñu génne fu ma tudd nit fu ma tudd nit amul li ma waxit tey laa ko gën a wax aw ma lu may dellu ginnaaw tooñu ma kenn ko tooñu looy looy dellu ginnaaw looy dellu ginnaaw ay combat bi da nga cee te combat bi combat wu lan lan combat fi am yooxi tappale yi ci ci bi ci bi loolu day day day dara maanaam réew mi dafa naqaree waxee xam nga am na ñoo xam ne ñu ngi dem ba di ci réglé yeneen règlement yoo xam ne bokku ci am na ñoo xam dem nañ ba naan bugaan gi daan mi nga xam ne moom moom fii ñu koy enregistré am nañ dem ba àgg naan bu li ñuy wax fa lañ koy waxee yow ah, yooyu waaw ma ne hmm. bugaan hmm. li ñuy wax waxuñ ko ci teleem ci site internet yi lañ koy wax yéena ko tey yéen ñépp ko gis site yaa ngi nii toog fi la ñuy waxee lépp nañ ko wateel duñ ko wateel yàlla yor kay gañe yàlla moo yor kay gañe te ñoom suñ ko suñ àndoon ak bugaan duñ ko bàyyi suñ àndul ak moom it duñ ko loolu jarul wax li may wax fii laa koy waxee ci Sidi mu pare ma pare ci mais waxewuma ko ci ci télé Bougane ku am looy laaj na laaj ah oui ah oui mu ngar ca Rabat ca Cheikh Ahmed Tidiane Chérif foofu la dem ziyaar yi jot na ma téléphone ne ma jot naa audio bi nga def ñu wax la wax su ma ooyee dinaa ko oyu su ma keneen ooyee ma oyu ko mais lii lii lii lii dafa dul dara lan moo jar lii iraa ngi tiwaa woon yaa ngi tiwaa woon wax na lu la jaaxal doo déplacé wu seeti ko lan moo ci indi ay sénéraak ministre de l'intérieur rek xaw ma lan ak lan ak lan ay plainte plainte yooyu lu muy jëriñ Iran ngi nii zéro mètre moo xalifa bi dëkk nga xam ni ñoo dëkk wax na lu la jaaxal mais solal sa dàll nga dem seeti ko su dee da ngay defar su dee da ngay defar laa wax solal sa dàll nga sem seeti ko soo demee ne ko man damaa dégg wax sàng mu jaaxal ma mu ne la wax ji lii laa jublu ak lii ak lii mais nga ne ah, ah kon baax na wala lii laa ci jublu mu dëppoog li nga xalaat nga ne quoi ah, bu ko defati parce que ñëw bokk kilifa nangam nangam nangam loolu nga war a wax mais doo dem ñëw fii dem fee dem fële dugal li ngay dugal kon deferoo deferoo da ngay yàq deferu loo da ngay yàq kuy defer nii ma wax ngay sol sa dàll seeti nit ki ngeen toog nga wan ko ni yow li nga wax ndax yaa ko wax mu ne la waaw lu tax nga wax ko mu ne nangam a tax ma wax ko mu dëppoog li nga wax nga ne ko ah bu ma doon yow du ma ko defati ma xalifa bi nii di nii nii nii wax sa wax mu rafet ñu tàqale ko mais yow nga ñëw dakaar romb Ira Tiwaawoon mardi ñëw nañ Tiwaawoon mardi ñëw nañ ba ci kër ga waaye duñ fa ñëwaat ah dañ koy wax duñ fa ñëwaat duñ fa ñëwaat parce que ka fa ñëw lam doon dox xam naa ko yooyu du defer ay yàq rekk lay jur ay ay yàq rek lay jur te yàq yi ci seen kaw lay këppu man duma laal dara dara dara dara duma du def sëñ bi bu ma ko waxee dara xam na su ma ko waxul dara xam na man li may wax yàlla laa koy waxal nee naa leen daara yii yàlla ji yonent bii jàkk yii ku leen laal ma laal loolu wax naa ko ba tàyyi duma ko duma dellu ginnaaw ku yor sa par parloo nag wala sa naafiq wala sa jëm wax leneen yaa xam mais man lii laa gëm lii laa gëm lii laay def waaw ah, loolu mooy sama parole ñi ngay wax léegi ne bu dee bu dee defar moo leen dékkitewoon waroon nañoo ñëw ba toog ak yow. Ah, nga ne ñooñu bu ñu ñëwoon toog ak yow da nga changé sa communication ni nga koy defee. déedéet. parce que la waxtaan du doon loolu dañuy ñëw nema ma ah, dañoo dégg nangam ak nangam ak nangam ñu lay laaj ndax kilifa gi ñoo ko bokk yow bokko fen boo bokkoon feneen sax ñu fekk si la rawatina biñ bokkee li ñu bokk ñu doon laaj nag lu xew wax sàngam ak sàngam dañ ko dégg tuddoo turam nag waaye dañ koo dégg daal mu dendandoo ñu lay laaj ndax moom ngay wax wala koy wax su dee moom ngay wax nga yemale ko fi ñun ñoo bokk lépp su dee waxoo ko alhamdulilahi rabbil alamin ñaanalante dem mii lu ni nit mën na ko régler ci xel waxtaanee dafa am solo waxtaan dafa am solo su fekkee amul loo ca bëgg su dee defar rek nga bëgg am na solo

xam nañu ma bu baax fii du ma fi yàq Sénégal gii duma ma fi yàq ñemme ñu ma ko mukk damay defer di jël sama alal di joxe di sonn loolu nañ ko génne mais bëgg a génne ay waxi tappale rek loolu mooy lan amul njëriñ nañu waxtaan moo am njëriñ nañ ma fekk suma kër ñu waxtaan bu dee bu dee dañuy defer su dee nag deferuñ dañoo bëgg a yàq dañ ko bàyyi ñoo xam ñoo xam waaw. léegi liñ bëggoon a laajaat mooy ndax yow ak xalifa bi maanaam jege yoo ngeen génne jege bi ndax yaa ngi koy gis xalifa bi. wala dama baafee bi amee léegi ndax kenn ku sant si tamit defagum na la ko. waaye yow yow yow ñi ñi sant dañu am jotug loolu. dañu am jotug loolu. yéen kay yéen ne fii di laaj pour bu ngeen teg seen affaire yi rek pour lu ngeen teg rek. Hmm. waaye yow loolu loolu ñooñu dañoo am jot. seen lu ñu am jotug loolu. Ah, comme ñoom la ñuy waaye yow ñoom dañu am jot lan moo fi xew ba tax ñoom ñuy jóg baa ñuy jóg dugg fii baa ñuy dugg fee dugg fee loolu pour pour njëriñ ban njëriñ la am la ngay la ngay euh, jóg day am fayda am fulla nga jóg ci fulla ak fayda waaye loo xam ne ay détails rek la ña koy dox buñ doon dox dëgg du ñëw Dakar suñ doon dox dëgg mais bu fekkoon da ngaa ñëw ci Iran wax ko mu bañ di continuer di wax di tudd xalifa bi mais mën nañ koo woo yóbbu ca xalifa ba ne lii muy wax ne ko bàyyi hmm. gannaaw munu koo bàyyi na la bàyyi hmm. ñun waxtaan nañ ba tàyyi mais mu dëgër bopp hmm. ñu xam ne kon waxtaan am na mais dara amul dara dara dara dara seetuwuñ Iran waxtaanuñu Iran defuñu Iran dara dañoo jël yóbbu seen uni Babacar Diagne yóbbu fu Babacar Diagne ak kan ak kan ak kan pour pour lan ñu leen jox loolu pour lan ñu leen koy jox mii ti ma nekk ci waawoon dafa am lu jiitu fi ngay xam nag ni ñoom am na lu nu nar mooy génne la ci njaboot gi far sax soxlawoo ko suñ la soxlaa nga dugg buñ la soxlawul nga génn soxla rek buñ la ci bëggee yaa ngi ci biir loolu lañuy dox mais xam nga ni du defer du defer kuy defer du def lii kuy defar du def lii iraa ngi tiwaan maa nga ca daara ja dew ma fen daayu ma samedi rek lay ñëw dakaar yi ci des maa ngi ci maa ngi ci daara ji ma iran yow lañ soxla na te ñu toog ah ñun yow nangam ak nangam ak nangam la dégg ñu doon laaj ba xam li nga wax lu tax nga wax ko ma ne la ma tax ma de wax ko mu dëppoog li nga foog nga ma bu ko waxati ndax ñoo bokk kilifa ñoo bokk kër gi ñoo bokk yaakaar kon du sa wax ma ne kon baax na maa tudd turam ma ne kon nañ ma jéggal mu jeex tudduma turam bu kenn jéggal nañ ma waaye yow doxal mm-hmm. fële euh, Euh, nga baal ma mais est-ce communication moom moo leen di déranger parce que de à chaque fois booy communiquer da wax ay ngay utiliser ay mots yoo xam ne xëy na loolu moo tax ñoom ñu gis seen bopp parce que toogoon nga fi aussi di wax ci teewaan di wax ni ko aussi euh, ginaaru kenn nenu ma est du wax yooyu tamit kàddu yooyu noonu moom moo leen moom moo leen sees pour toog tànk jàmm ñu am ay buntu ñuy jaar wala mais nga ñi nga xamante ni ñëwoon nañ dootuñu ko defal ndax du xadar xamante ne dañuy def dedet intervention kenn jëlu ko nañu xanti deug rek nañu waxanti deug rek li am solo man xadar bima ma am awma xadar tëjuma sama sama nit sama nek ndax nit ñi kuma soxla su nitu farata nga dang ma gis soo dul nitu farata doo ma gis man nii laa mel je suis comme ça mais nag ay càmbal jàppal fii dugal fii nañ dem fii yooyu duma ci dugg su ma xasee dugg suma néeg ba kii tëj dem na pare na ci su ngoonee mu ñëw tijji bunt bi ñu bokk lekk ñun ñépp waxtaan def li ñuy def bu tëdd jotee ñu dem tëdd loolu mooy suñu liggéey mais nag kantaa nekk nii ay grand place iraa nga kër sàngam iraa nga dëkk sàngam iraa nga non doo ko dégg jamais man man man je suis comme ça man dama sant yàlla dama sant yàlla dama sant yàlla mu jeex sant na yàlla torop gërëm naa ko torop yaakaar naa ko torop wéeru naa ci kawam torop doy na ma torop kenn doyuma ko dul yàlla yàlla rekk ma doy bu leen keneen doyee jàpp leen ci yéen du yéen a ngi nii jàpp leen ci léeg-léeg ku keneen ki leen doy rek man ma jàpp ci yàlla mi ma doy ba xam fu ngeen di mujj ak moom du ngeen mujj fenn fenn ngeen dul mujj loolu torox naa ngeen ne torox naa rek waaw. dañu doon général day ñëw ak keneen ak keneen di wax loo euh, sëñ bi daal dama sañoon sax wax jooju ngeen teg ko nag. Hmm. ndax laaj bi dafa bëri. Hmm. te amul njëriñ man la ma waxoon wax naa ko. bu leen neexee. Hmm. wax naa la ma waxoon. su leen naqaree. wax naa la ma waxoon. li ma wax bu leen doyul. nañ ci dem. ma du changé waaw. léegi léegi mm-hmm. du changé euh, suma diggante ak Tiwaawoon mm-hmm. dara nekku ci gis nga nit ñiy jóg mm-hmm. ñooy dox seen affaire rek waaye waaye waaye waaye ku bëgg a defar Iran ngi Tiwaawoon sëriñ baa ngi Tiwaawoon lépp nga Tiwaawoon nga waaxu dem néeg Iran kenn du la ko tere nga laaj ko lu ngeen li ma dégg na mu leerale lim lay leeral nga ngeen déggoo ku ne dem yoonam yombul soo rombee Iran nag ñëw ba ci Babacar Diagne dem ba ci ministre de l'intérieur dem ba ci ministre euh, bu yor xawma lan ak lan ak lan yooyu yëpp nga dem fa mais demal mais ñun mënoon nañ cee bañ a jot mënoon nañ cee bañ a jot wallahi wal qur'aanil hakiim yëgu ma woon coow billaahi yëgu ma ko yëgu ko yëgu ko parce que man du ma nemmeeku yooyu sama jot awuma ko mayuma ko sax su ma tëjee maa ci yeneen su ma génnee maa ngi ci yeneen du yeneen ma fekk ma tourné ba pare maa ngi leen di tourné su ma paree maa ngi ci yeneen man loolu mooy suma liggéey mais quant ay def wax yooyu sax dama bëggoon ngeen bàyyi parce que amul njëriñ amul njëriñ ay Iran wax ne lii Iran lee la wax Iran laa la wax man lu ma wax xam naa ko lu ma waxul xam ko xam naa wax xam naa waxul mënu leen maa wax loo lu waxul mënu leen maa wax loo lu deful mënu leen maa def loo lu waxul loolu moom na len leer ne man tan waye nak li man na ma def man len ko baye man len ko tax baye mukk Iran tuub daa dellu ginnaaw la ilaha illallah xanaa xamoo Iran da xamul Iran fu may delloo ginnaaw kan kan moo may delloo ginnaaw ban bindee fa mën a tax ma dellu ginnaaw yow yaa ngi ci li nga ne waxoo ma ci dara ok leeral nag baax na nga leeral nit ñi mu leer ci seen nopp baax na baax na ma leeral leen leer na jeex na la ca des nag waruma ci woon a wax waaye nag euh, bu nit di wax nga ne patt day mel ni yaa nekkul ci dëkk a sumtu iqraarun dañ ne noppi saxal la suy wax waxal su noppee nga noppi waaye su nuy wax nga ne patt mais day mel ni yaa moom wax ji daa mel ni yaa wax wax ji da nga naan da ngay da lànk man tudduma sëriñ bi fànn fenn la ko tud fenn la ko tud bu len nexé nak ñu momalé ko gis na sax kan momako ma fi may joxe ni señ bi diko diko wax mais eh, lolu <laughs> ban ban mana la yow yaangi nek sit internet mais seetal lu sérieux nga diko tek teg lu sérieux nga diko tek mais bul xol lo xamne dana ma may xaliss mais dana lor kenen lol doxul dana ma may xaaj dana lor kenen doxul nañuy tek limay wax su ko defé ku top lima wax nak man nga ko man nga ko dugal fenen waye nak mbubb mi ma sol nak ben waye mako jox maxtaar xam nga lutax mu jox bako daf ma ne dama dégg nga ne sëñ Mountakha mooy l'homme de l'année ma ne ko baña mooy l'homme de l'année maa ko ko wax ma ne ko mooy l'homme de l'année pire loolaa ko bégloo mu jox ma mbubb mi boole ci ñaar fukki jub ne ma nga ñawloo ko ko waaw moo tax ma surxal ko foofu continuer laaj léegi ndax ndax oustaz mi ngi génn di def ndaje yi daan def ba léegi ak bi ndaje bi nga daan def Thiès ak yooyu ndax yooyu oustaz pare na pare pare na di génn di ko def ba léegi waaw xam nga man nag damaa sonn mhm. man fi nga may gis nii mhm. mënuma dere dere dere dere eh, buñ ma jàppoon sax fi muy gis nii mhm. yóbbu ma fenn dañ may noppare man damaa sonn fi mu ne damaa sonn sonn boo ma xoolee sax xam ko boo ma xoolee rek xam ko ci man dama sonn gàmm gi tax ma di ko def Euh, njaboot gi rek waaye man amalatuma njëriñ waaye nag njaboot gi moo tax ma di ko def di organiser ñu ñëw jàpp ci semaine ak lu ko ëpp danañ togg añ reer ndékki añ reer ndékki añ reer ndékki pour kuy taxawaalu foofu waaw kay man cee barkeel hmm. loolu mooy tax ñu di ko def loolu rek doy na gàmmu gi bu bés ba jotee nag Alioune Sall bu 3 heures jotee ma ne ko tasal gàmmu gi 3 ñu arrêté gàmmu gi gàmmu gu bër set amul foo ñu foo nit ñu sonnee rek lañ tasaaroo waaw sonn nañ ma ne ko acca mu ne ma ban heure lañ koy tas ma ne ko 3 heures ma ne acca wasalaam ñu tasaaroo ñaan acca waaye dama sonn waaye nag du tee bu jotee rek ma def rek mm-hmm. waaw ma def rek waaye nag yaram yi sonn na cër yi sonn na euh, yi ma dugg bëri na daal bëri waaye nag alhamdulilah waaw alhamdulilah. ok euh, ah, bu ko neexee non violence buñ ne nañ ko signé hmm. ku bëgg. ko bëgg muy signé ko bëggul du signé du réew mi nooteel amu fi réew mi du réew réewu jaam réewu ngor la soo bëggee dara da nga naan nangam nangam dama koo bëgg ku ca d'accord ak yow def ku d'accordul ak yow bàyyi amul nooteel réew mi du mais loolu day farata du farata te non ku ko signé ak ku ko signéwul ñoo yem ndax mën nga koo signé booy vieux bo bo booy booy taj booy yëngal doo ko yëg doo ko tey kon li ngay signé kay da nga koy xam ni soon ko def dëgg la liberté la parce que nit dafay dafay mën a def def man te def mu lànk bañ a lànk. est-ce que nit ñi duñ jàpp ne nitu fitna la comme comme ni non euh, liñ koy waxal gis nga liñ koy waxal euh, réew mi mel noonu. réew mi mel noonu réew mi suñu la la nitu fitna nitu nangam nangam nitu lila, meman, mais man ci suma xel duma jàpp ni nitu fitna la damay jàpp rek dafa am lu mu bëgg ci li mu rek ñu euh, Serigne Cheikh soo gisee njaboot ñeme kilifa nee na li ko waral tas yaakaaram a tax ndax koo tas yaakaaram mu ñeme la waaye neena boo gisee kilifa njaboot di continuer ba léegi di ko jàpp dafa tasul yaakaaram kon nañu bàyyi rek ñëpp ñëpp nañ leen bàyyi waaye Macky sàll ba muy ut dañ ko bàyyi dañ ko bàyyi na leen bàyyi te réew buñ demee ba ndaw ña ñu tëj kaso ndaw yi léegi màgget ñi ñooy réew tëb mag man na ko wadd mag man na ko xanaa mag boo yéegi escalier sa àppa balaa wax ak yow dana toog ba mu yàgg yéen ngeen di yéeg escalier ngeen di ko def ñett ñett mais du benn kon na bàyyi réew mi kenn ku ne lu ñu indi nga d'accord ci nga def ku d'accordul ne ma mu jeex waaye euh, loolu ko ko signé itam mën naa am bés eh, dara ñëw booy déconné doo ko doo ko tey réew mi am réew la waaw Sénégal ak Sénégal la voilà. mais liggéey <coughs> état mënul liggéey lépp yàlla mi mën a liggéey lépp matalewul gaana yaa ngi ci mbedd mi lafañ yaa ngi ci mbedd mi selmaxa yaa ngi ci mbedd mi muuma yaa ngi ci mbedd mi tëx yaa ngi ci mbedd mi te yàlla mën naa matale lu tax matalewul lépp état mënul matale lépp mën naa def la mu man da ca des nag njaboot gi jéem ko defal seen bopp ku yaakaar nag état man moom kaccet ma ci man moom kaccet ma ci man kaccet ma ci yoo sama yoon nekku ci lenn kenn man samay mbir yàllaa ko yoon kaccet ma ci waaye nag dëgg bu jotee nga wax ko buur man tamatal lépp lii day mat lii du mat nga jéem waaye ku bëgg nag ne état dafay matal lépp juum nga daw yàlla moo jiitu te yàlla matalul soo demee màkkatal mukarama nga dem madinatul munawara da danga fekk dereti yonent bi ñuy raam di yelwaan yàlla yoon safu ko safu ko yàlla dara safu ko xam nga lu ko saf lim bëgg فعال لما يريد لما بغى لا من خوما لي نين لما بغى لا وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين الا ان يشاء الله رب العالمين لي لين تاي نيغي ني ديف ني مي مانون نا ام اي غالانكور كين دوتو كو ديف ام اي غالانكور كون يالا موي كي يور ليب موي soo nammee dara nag moo waral nga naan insha allahu danaa ñëw nangam looloo ko indi wala taqulanna li cheyin inni failun dalika xaddan illa an yasha allah rabbul alamin soo nammee dara yow muhammad ak ku mel yow muhammad neel bu soobee yàlla dinaa ñëw suba waxuma dinaa ñëw suba bu soobee yàlla bu illa allah bu soobee yàlla dinaa ñëw suba su subaa bu fekkee ne yàlla am na beneen natt bu mu la teg ñu xam ne kon soobuloon yàlla looloo ko indi kon ku mën a matal amul ku mën a gérer amul yàlla mooy gérer moo matal moo mën lépp ti defu ko defu ko yàlla beneen affaire la yàlla beneen affaire la yàlla beneen affaire la yàlla beneen affaire la te da ci xam dara dangeen ci xam dara du yaa ngi di wax on kii di wax on da ngeen ci xam dara da màgget a màgget a màgget a màgget a màgget ba du ngeen dox seen bët du gis seen nopp du dégg seen loxo du jot dara dootu leen ko bokk xanaa rekk toog xaar dee ñépp a ciy jaar ñépp a ciy jaar ku yebbu rekk nga jiital yàlla topp ci kawam rek lu mu def nga ne baax na lu mu tere nga bàyyi lu mu digle nga def ay yàlla de yàlla de mbër la de mbër la de yoo nga ne Tiwaawoon nga ne Tuubaa nga ne fu nekk ngi ne feet dell ak ay niiw ñu sul ci armée li té nit ñi dañu gëna dem rek war nga xamné yalla du caaxaan farata lay def farata dañ koy fonk waaw koy euh, mu mel ni oustaz ci bir laaj bi sax amna lo xamné xam daf ci xawa dess ndax euh, bu ñu gisee pacte bo nga xamné ku mel Ousmane Sonko taxaw na né mom du ko signé euh, dafa am ñen ñu bokk ci ñiko organiser moy cadre unitaire la ëmb ay doomu kilifa diine te liñ daan faral di seetlu ci Sénégal moy يونيمال بودمال أي سفليسي بني وحى ولا سين أي ناو دنيا كيس نجام وداي أم مي مومل نجام ونبي بنين سانس معروف أم تي أسكان بي بعها خمنتني لجوجي صح مم تي كيلي في دينه تفملني دنتي بمي أخكل فوفلات بيجي أم وين دخ يس أبو العارف المسالك يقيه في طريق المعالي بعمر كتير بدون خملة تي سرين دفع دون خوا جفة جام ونبي ولا لما ورا نيو أم تيني دنتي لجوجي تي كيلي في دينه دفع أمم خمغه uutin yee dul benn uutin yee dul benn li ngay wax booba taalibe daa am sëriñ am ngay ñëw di jàng ci sëriñ bi mu di la jàngal léegi ana taalibe ana ngay gis ñuy wax ñëpp dañuy ànd ak sëriñ bi nii rek mais duñ ko ko roy mukk kon loolu du tax ñu bàyyi li ñu war a topp gis nga jamono soo bëggee mu raw la soo bëggee mu raw la mu raw la soo bañee mu raw la du la raw Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu wax ne sir ma zamanika so bañé jamono raw la doxal ànd ak mom bul teud nelaw bul ko jitu sir ma zamani ñu laaj sëñ Babacar ne ko man il arif mune man a al aarifu man arafa bi zamani ki xam li jamono mom laaj mu def ko jamono bu jëkk bokul ak li jamono ay serigne abdo ay serigne Cheikh ak ay sëriñ Mansour ak ay sëriñ mustafaa Jamil nag ñooñu seeni jamono bokkul ak jamono bi booba njaboot gi tënku na nja ba ñu demee nag nga xam ne léegi dem nañu njaboot gi tinkeeku nañ bul defee ne danga def dara dara dara dara lu neexul njaboot mu def ko lu neexul njaboot mu di def da koy neex mu def neexul mu bàyyi loolu nag boo ko xamee defal sa def rek ñëwal ne ah ñun de lii ak lii la ñu bëgg ñan nangu déggal la def loola ñan nanguwul déggaluñ la def euh, bàyyi xam nga euh, euh, li nga wax sànq muy yaqihi fi tariqihi lmaaliki mm-hmm. yuzakiruhu llaha isa raahu mm-hmm. ويوصل العبد الى مولاه لول يومول يومول سيرين بو خم مبولم لو جيم سي تيو لو جيم سي ياو ري خم دو نيلو غوتي سيرين يوي دو نيلو غوتي اي سيرين لا نيو يور يور لا ني نيلو توتي تي غيس تي غودي غي با نيو غيس كو تي يور يور بي بون لاكو واخي دنا ñoom ñemewu ñoo nelaw ndax laa tàqusuhu sinatun wala nawmun yàlla lañ amal affaire te yàlla du gëmmentu waxuma laa nelaw